bonjour salaamaaleykum amis téléspectateurs nous avons le plaisir aujourd'hui d'être là nee naa la tey dama am daanaan goo xamante ni kenn dutu ko présenté ici au Sénégal elle se nomme madame Anta Dieye maa ngi lay char maa ngi lay delloo ziar bu baax a baax euh, ante Dieye tey ñu fekk la sa diwaan euh, est-ce que mën nga ñu wax kii ante Dieye ak fan la jaar waaw ante Dieye de benn ndaw loo xam ne mu ngi dëkk ci dëkk bi ñuy wax Koutango mhm. Koutango bokk ci commune bi ñuy wax Wack Ngouna mhm. département de Nioro mhm. région de Kaolack Euh, doon ndaw euh, màggee si dëkk bi yaroo fi jàngee fi mhm. am fi entrée en sixième mhm. jógee fi dem wàkk nguna mhm. bi ma demee wàkk aussi ma jàngee fa am fa sama BFM en 2009 jógee wàkk dem Kaolack lycée Valdiodio Ndiaye. Mhm. en 2012 ma am fa sama bac S. Mhm. jógee fa ñu orienté ma en 2012. Mhm. université Cheikh Anta Diop de Dakar. Euh, département mathématique informatique. bu faculté des sciences technique techniques. voilà foofu laa ne ba 2017 ma am fa sama diplôme master 2 en informatique. donc génn nekk ingénieur en informatique. ingénieur en informatique. voilà euh. di nekk aussi militante de de l'AFP. de l'AFP Anta sa sa parcours bu ñu ko dee xool maanaam da nga nekk ndaw boo xamante ni da da nga nga am pas-pas da nga am yéene ci sa dëkk parce que tout à l'heure bi ñuy ñu seqee waxtaan avant ñuy ñëw toog ci plateau bi xamal nga ni ma yaa ngi bëgg def loo xamante ni sa biir dëkk loo xamante ni xaaroo ci état loolu lan moo la ko may Ah, ñun nag dañu dañu nekk ndaw comme ni ma la ko waxee mhm. jàng ba pare am ay diplôme mhm. mais yàlla def ñu engagé wu politiquement mhm. déjà may rappelé ko ne déjà jeune fille yuy engagé wu politiquement bariwul surtout soo ñëwee ci village yi nga xam ne d'habitude boo gisee deux ou trois filles ngay gis si dëkk yi ñi nga xam ne ñoo engagé politiquement yàlla def nag ñun ñuy politique nekk ci parti boo xam ne muy la parti président Moustapha Niass ku xam Moustapha Niass xam ko ci social mhm. social new ne moom day jël xaalis di ko joxe mhm. new ne day ñëw jox kii cent million kii dix million kii nangam mais dañuy jëf loo xam ne mhm. population bi dinañ si jëriñu dinañ ci teg seen bët comme ñun dañoo màggee ci ronam ah, di gis muy def ñuy gis ñun li ñu war mooy ñun ñu fi teg à la base ñu koy représenté ñun aussi suñu localité yi nañu def loo xam ne population dinañ si jëriñu man Anta mënuma kër gu ne ma dugg fa may la mille francs wala kër gu ne deux mille mais yàlla mën nañu suturaal loo xam ne at bu jot wala ay weer yu nekk ñu def loo xam ne population bi dinañ ci gis seen bopp looloo waral tey jii ni suñu journée d' action progressiste bi nga xam ne ay action sociale la ñuy def bi nga xam ne képp kuy ndaw kuy mag kuy góor kuy jigéen di nga ci gis sa bopp voilà yow Anta mënoo euh, dëggu kër goo gis may ko 1000 francs moo tax nga dugg ci politique wala dafa ah, dafa am lu la dugal ci politique wala Moustapha Niass moo la ci politique li ñu dugal ci politique mooy suñu engagement et que pour aussi jàppale nit ñi defar cité bi mhm. Moustapha Niass 99 dafa créer parti mhm. man 99 boobu parce que man sam sama papa dafa teel a gaañu. Mhm. ñu yóbbu ma Gambie ma nekk fa. Mhm. donc 99 laa jógee Gambie ñibbi ci Sénégal. Mhm. ñu doon ay ndaw mu Moustapha Niasse créé partem mosuñu militer ci benn parti. idéologie partem bi nga xam ne AFP appel du 16 juin 1999 euh, bi mu teg. xëy na ñu gis ko doylu ko. mu doon loo xam ne vision am doy nañu moo tax ñu engagé wu ci. newuñ ne dañu engagé ñëw ku nekk ñu defal lii déedéet dañu bëgg engagé wu pour que ñun ñëpp ñu ànd ñu tabax Sénégal. encore une fois suñu politique yemul Koutango. parce que ci kanam tuuti dinañ ànd ak yéen dem ci beneen dëkk boo xam ne bokkul sa commune de Wack Ngouna mhm. ñu war fa def ay action sociale donc newul ku tàngo la ñu yem mhm. li ñu war mooy ay ndaw leen jàng nañ donc war ñu bokk ci ëllëg ñi nga xam ne ñooy diriger di defar dëkk bi pour mu avancer wu mhm. looloo tax ñu engagé wu looloo tax socialement lépp loo xam ne suñu mentor mi ngi ko doon def ci gox bi rawatina ci commune de Wack Ngouna nga xam ne moom fii la bokk département de Nioro ñun aussi ñuy jéem a jaar ci tànkam rek pour def ko euh, xamante ni moom nga fekk Moustapha Niass teg ko fi moom wala action yi si la bokk mais comme li wax ci vision mhm. ak idéologie bi nga xam ne au delà de Moustapha Niass mhm. parti bi nga xam ne moom la jiite muy alliance des forces de progrès mhm. AFP vision bi mu am donc ñun lañ am parce que AFP dañu wax ne c'est le parti des femmes et des jeunes donc ñun ay jeunes lañ bu ñu parti jeune la newu ne dañu doon jeune pour ñëw ñu jox ullu ñu jox non non ay jeunes lañu jàng nañ nañ jéem a xool loo xam ne mën nañ ko servir suñu localité ñun ñu ngi jàng liggéey nañ ñu ngi liggéey newul état moo ñu man mii di wax ak yéen privé laa nekk su ma neex neexoon mun naa ne maa ngi privé euh, nguur wala politique joxul ma loo xam ne war naa dimbali nit ñi mais non non mhm. la may am privé ak lamay am si nit ñi mhm. parce que tey ñu bëri suñu xamee Anta ci politique yàlla ak AFP la yàlla ak président Moustapha Niasse mhm. tey directeur boo dem fëgg buntam mu ubbi la ministre boo dem fëgg buntam mu ubbi la parce que am na bët bu mu lay xool mooy lan kii duñ ne Anta militant AFP mais dañ naan doomu Moustapha Niass la mhm. kon ñun am na benn royu kii benn comportement boo xam ne moo ñu war mhm. parce que mënuñu wax ne ki militante AFP la kii doomu président Moustapha Niass la ñu jël yenn yi di ko comporté wo mhm. li ñu wan mooy ñu jàppale ndaw yi tey may joxe exemple bi jumaa ji ngeen di gis à côté président Moustapha Niass moo ko fi def bi ko fi def c'était en 2008 si je ne me trompe pas Aïda Mbodj moo la femme boobu am na garab bi ne woon fii man la abbu sama kaye la dessiné plan kii bi mhm. maa ngi def quatrième mhm. mu ne ma ndeysaan soo màggee loo bëgg doon mhm. ma ne ko ministre de la femme mu ne ma ministre de la femme dañ la koy fal mais sa côté loo bëgg doon ma ne ko médecin laa bëgg doon après mu may def na ko bi ñu nekkee ndaw 2008 ñu fekk ko boobu amaguñ sa BFEM donc ñun bu ñu ñëwee mu def loolu am na loo xam ne war nañ ko def à ses jumaa ji tuuti boo gestoo armée yi ñu ngi fi bi ñu commencé liggéey am as tuut si ay ndaw lañ ñu ngi liggéey nañ xool lu ñu def moo taxoon yàlla bi ñu yàlla dimbale ñu dajale tuut ñu ne ñu dem jënd ay ciment teg ñëw clôture armée yi nga xam ne président Moussa Niass si la toog ne Anta noo def ba def lii mhm. ma ne ko du lenn da def jumaa ji ma dëkk ci dëkk bi mhm. am na loo xam ne war naa ko def tey boo ñëwee au moins nga xam ne ki nga xam ne mi ngi ci dëkk bi nekk sa parti mhm. newul fi di yaafus newul fi di wax ak nit ñi pour politique taxawaalu mais am na lu mu jëriñ dëkk bi donc looloo tax ñi ko continuer suñu action yi chaque année dinañ def loo xam ne rek population di gis seen njëriñ Anta ñu gis la ngay def ay action sociale yu bëree bëri maanaam fi nga xamante ni fi nga dëkk tey financièrement Anta kan Moustapha mooy tëbb di ko jox wala Anta dafa am ay partenaires yoo xamante ni ñoom ñoo koy financé <laughs> yàlla kese moo may finance mhm. euh, président Moustapha Niass tib comme li ma la wax tibbul jox ma keneen tibbul jox ma mhm. mais nag nit ñi dañ ñoo xam bëgguñu mhm. bëgguñu ngir lan bëgguñu ngir politique bëgguñu ngir le président Moustapha Niass wax naa ko léegi armée bi ñu koy clôturer six cent mille laa am tàgguma kenn waxuma kenn euh, ma dem tënge jënd sama dix tonnes ciment bi ma yegsee fii ma wax waa kër gi bi mu ngi ñëw 10 mhm. tonnes ciment moo ci def dama bëgg a clôturer armeri mhm. ñu ne ah, loolu métti na de ndax boo ko commencé di nga a yeggale mhm. ma ne yàlla kese mooy yeggale yàlla xam na ne bi ma ko commencé nit ñi dégg ko bon volonté yi directeurs généraux yi ñi nga xam ne ñu ngi dëkk ci gox bi kii toog ne anta may naa la une tonne kii ne anta may naa la cent mille kii ne anta may la deux cent mille donc jumaa ji lu trois millions na ci te su ma yeboo ma ne man sama sept cent et quelques deux millions et quelques kii du kenn nit ko ko def président Moussa Niass bi may euh, armée bi ma koy clôturer dama ko nëbb mhm. parce que en deux mois lañ ko accéléré mhm. bi ñu paree veillu laylatul xadri la woon 2019 mhm. ma ne ko papa man ne dama doon clôturer armée di Koutango yi pare na defaral naa leen porte dama bëgg jox leen mu ne ma noo def ba euh, clôturer lii ma ne ko encore une fois dama xam yitteem xam bëggam xam jaamu yàllaam tey su ma ko waxoon maa ngi dina jël engagement def ko ma ne ko waaye am na loo xam ne war def yow nga gis ko siggi mhm. ma ne ko nag du maa ko def mais damay jàpp ne yow la mhm. parce que ku si jàpp moom moo tax mu jàpp donc nit ñi la bonne volonté yi ñi dëkk ci bi mhm. ñoo si njëkk a jiitu département de Nioro su ma yeboo ma ne directeur généraux yi ci ne yëpp jàpp nañ ci au niveau national aussi nit da koy dégg parce que kuy defal defaloo Anta defaloo waa dëkk bi mais yàlla la man tey armée yi xañ na dëkk bi sutura la dinañ ci am mais yàlla mooy fay xañ na tey lu ma ciy def du politique du lenn mais man yaakaar naa si ëllëg loo def rek di xaar yàlla fay la ci yiw moo tax ñu def ko <laughs> tey ñu gis ni danga nga organiser journée d'action progressive lan nga lan nga ci lan nga maanaam lan nga ci jublu euh, pour pour pour dajale waat les les jeunes la wala pour pour la pour indiwaat loo xamante ni dina mën a tax jeunes yi booloo doon benn ak lan la ci Anta jublu déjà comme ni ma ko waxee chaque année rek mhm. dañuy jël benn action boo xam ne dañ koy def pour ñëpp jël si mhm. euh, journée d'action progressiste bi tey ma rappelé déjà liñ mhm. am euh, benn dëkk commune de Ndramé Escale am don boo xam ne dañ leen koy jox pour seen morgue bi ñuy tabax suñu paree aussi dañu jël élèves yi nga xam ne ñu ngi ci euh, école primaire bi ak franco arabe bi ñu enrôle leen si couverture maladie universelle parce que projet boo xam ne dafa bokk ci ci plan Sénégal émergent mm-hmm. Mm-hmm. mais da ngay gis yeneen dëkk yi autorité yi ñu naan enrôlé nañ mille élèves mm-hmm. deux mille élèves mais suñu gox bi doo dégg kenn mu def ko donc xañ na ñoom ñu ngi fii ni à la base du ñu comprendre mais ñun ñi nga xam ne ñoo xaw a nekk je dirais pas au sommet mais ñu ngi nekk ci information yi fu mu ne mhm. ñun war na am na loo xam ne war nañ ko mën a apporter nit ñi mhm. apporter ko parents yi loolu moo tax ñu jël élèves yëpp tey wala leen aaroon leen si couverture maladi universelle mhm. au delà de ça aussi comme ay len leen ñuy def euh, affaire action jeunesse parce que man muy wax ak yéen présidente ASC la donc ASC Ufragel bu Koutango maa doon présidente bi mu amoon beneen ASC muy daara ji mais bi tabaski bi passé xale yi dëkk bi yëpp dañu réunir boole ASC ak ASC ji intendante de Koutango jox ma ko man ma nekk présidente bi ma jiite ko donc ñu ne comme loolu am na chaque année dañuy football mais clandestinement lañ koy defee mhm. donc dañu bëgg zone am fii nii mhm. ku ko gis xam ne centre la am na mhm. dëkk yu bëri ñoo ko wër donc bi loolu amee ñu dem si dëkk yi waxtaan ñoom dem nañ Ngomeen Feeto euh, Kër Tafa di dëkk la président Moustapha Niass dem Touba dem Kër Ngor dem Diba waxtaan ak ñoom ne d'accord na ñu installé zone bi Koutango mhm. donc bi loolu amee ñu woo aussi waa euh, service départemental des sports bu Nioro mhm. di nuyu Sada Kane au passage mhm. ñu accepté que ne ñëw tey dinañ ñëw installé ñu zone bi fii donc ku wax zone wax jeunesse looloo tax aussi ñu def ko c'est vrai dina boole mais dañuy politique mais ne nit ñi bàyyi seen xel que ne loo def rek am na lu ko laal ci suuf yàlla dafa fekk ne ñun biñ dalee di def booba ay tuut tànk leen te bu fekkoon ne dañu am ndombay tànk di def di ngistal mun nañu wax ne politique la mhm. mais li ñuy def suñu moyen bopp la ak bonne volonté yi ñuy jàppale mhm. moo tax ñu def ko waa CMU aussi yombalal ñu ko mhm. bu ci kanamee ñoom aussi délégation CMU dinañ ñëw enrôler ko donc lépp lu ñu pour suñu gox jëm ci kanam la pour avancer dëkk bi la pour boole jeunes yi la mais xaaruñ ci lenn en retour mais nag dañuy nekk ci parti te ku sañoon ku ne yi nga ne dëkkal ñu ñëw ñu ànd ak yow ñu politique aussi ñu leen di tànnal loxo rek que ne ñu ñëw ñu liggéey ensemble neewul ne dañuy ñëw antale ñu topp parce que mu ngi AFP mais dañuy ñëw pour defal Koutango defar Wack Ngouna defar département de Nioro mais defar aussi la Sénégal. defar aussi le Sénégal loolu am na solo mais Anta depuis quand nga nga nga sentir ni yow da nga war def politique. <laughs> man comme ni ma la ko waxee man mm-hmm. bi ma nekkee CEM ba tey ngi politique. Mm-hmm. je me rappelle CM bi c'était pas trop kii mais en 2007 su ma juumul. Mhm. booba feu Kéba Mamour Khouma moo fi newoon di président communauté rurale bu Wack Ngouna. Mhm. bi ministre Alioune Sarr booba nekkagutoon ministre bi mu koy seet si boobu ñu ngi def CM. Mhm. ñun ñëpp dañu demoon këram ñu nekk ci politique bi et tout ça. bi ma paree ma dem Kaolack di jàng aussi ne lycée. nekk ci politique bi mais nag foo koy gën a defee mooy Dakar bi ñu amee bac mais avant ñuy bac am bac 2012. campagne 2012 si cadre Benno Siggi Sénégal aussi. ñu ngi active woon ci campagne yi. booba maître El Hadj Diouf ci Benno Siggil Sénégal la bokkoon mhm. comme ñu ngi doon Kaolack mhm. fallait que biir Kaolack mhm. campagne fa ñu moom campagne présidentielle yëpp ñu def moom léegi nag bi ñu amee bac en 2012 dem Dakar si lañ engagé wu carrément nekk ci mouvement étudiant yi ba 2017 2015 du moins lañ ma fal ma nekk présidente régionale bu étudiant yi nga xam ne jeunesse féminine bu étudiant yu nekk ci région de Kaolack 2015 mhm. ba tey ñu di ko diriger nekkatuñ ay étudiant nekkatuñ étudiante mais incha allah bu congrès amee dinañ ko joxe mhm. jéem a yootu ji leneen donc bu ñu yeboo ko ne ñun bi ñu ko ba tey ñu ngi politique te mosuñu politique ci benn parti lu dul ci AFP mhm. euh, tout à l'heure maa ngi la dégg nga ni euh, nga wax du euh, plan Sénégal émergent relation nga entretenir ak ñi nga xamante ni ñoo nekk parti ñi nekk ci pouvoir bi la ko waaye sànq nee naa la man direct buntu directeur général bu ma dem fëgg mu tijjil ma ko mhm. xañ na am na coloré boo xam ne dox na sama diggante ak ñoom mhm. ñeneen ñi aussi ñu ngi xool que na kii am na président mu ko teg mhm. et que dañu nekk ci coalition boo xam ne mooy coalition Benno Bokk Yaakaar président Niasse gëm ko di ñu diggal carrément nekk tout le temps lu ngeen di la Euh, coalition de Benno Bokk Yaakaar mhm. euh, président Macky Sall aussi am benn cër mu jox ko le président Moustapha Niass mhm. parce que deuxième personnalité de l'État mhm. nga jël ko jox ko koo xam ne ci ay fee la bokk donc ñun lu ñu war mooy ñu nekk en de très bons termes ak ñi nga xam ne ñoom la ñu bokkal coalition bi donc muy ministre de la République muy directeur général de la République muy secrétaire général ku ci nekk rek ñu nekk déjà ci département de Nioro la wax parce que ci département bi laa nekk amul kenn koo xam ne am naa xaar ma yàlla ak moom et au national aussi am na ministre yoo xam ne macha allah allah ah ñu ngi déggante ñoom di eh, waxtaan ak ñoom d'ailleurs Matar Ba bi ñu jàppee lii comme cadre sport la mhm. personnellement contacté naa ko mu waroon ma recevoir avant may ñëw mhm. mais yitte yi préparation tabaski bi ak mhm. yooyu moo taxoon ñu repoussé ko di lancer un appel rek di ko wax na ko aussi jeunesse Koutango jeunesse département de Nioro ñu ngi koy tàllal loxo ci cadre sport comme moom loolu la diriger na jàppale jeunes yi incha allah euh, Anta lan mooy objectif yi alors suñu objectif lenn la dañoo nekk ci parti ñu nekk ci parti bu structuré Euh, muy AFP mhm. yàlla def ñu suñu bo nekk ndaw mais nag ndaw ndaw boo xam ne xañ na bu ñu waxee ñu ngi ñuy déglu ci parti bi mhm. jox nañ ñu cër teg nañ ñu fu ñu war a teg mhm. jox nañ ñu suñ place donc jox la sa place newul nañu jox lañ doom bay tànk mais jox la sa place mooy nga war a def dara nit yëg ko soutenir la nawloo la te man ci AFP bi ma nekk amul benn leader boo xam ne yaa ngi fa te fi nga war a teg anta teguloo ko fa suñu objectif lenn la mooy ñun dañu àndoon ak président Moustapha Niass di liggéey président 2022 day dem mhm. ñun ñooy ay ndaw parce que AFP nee nañ parti famille ak jeunes la mhm. suñu objectif mooy ñu jàpp AFP ànd ak képp koo xam ne ndaw ga ci AFP ci famille ak leader yi ñu liggéey ba mbébét bi nga xam ne le président Moustapha Niasse amoon na ko ci Sénégal mhm. ñu yeggali ko ñu ne du ñu laaj du ñu wax ne nañ ñu fal lii du ñu wax ne nañ ñu jox li mais dinañ liggéey loo xam ne ëllëg xañ ne bu joxee jotee Anta du toog ne jox leen ma mais xañ na parti bi dinañ gis li Anta capable mhm. li mu mën ñu teg ko fa place am mhm. donc loo lenn loo xam ne ñu ngi koy laaj amul lenn loo xam ne ñu ngi koy ñaan mhm. li ñu war mooy ñun liggéeyal parti bi parti bi nag lépp lum ñu jox ñu jël lum ñu joxul ñun dinañ continuer di liggéey ñu gis ni milieu bi ngeen nekk dafa bëri transhumance trop est-ce que Anta mën nañ ko xaar mu transhumer jóge fii def si ay dem feneen <laughs> fan lay dem ah moom wax ñu ko man maa ngi progrès progressiste la AFP la maa ngi AFP lijjantiwuma transhumance fii lijjantiwuma fii liggéey lañu sant Mmh. liggéey nag lan la AFP nag newul ne instant bi benn parti mënatul jël réew mi mmh. ñu ngi déjà ci coalition mmh. donc coalition bi lan la AFP APR waa réew mi waa ñeneen ak ñeneen ñoo fi nekk mhm. donc ëllëg aussi 2024 xëy na beneen coalition dina teg mhm. ñu àndaat ak AFP ñu dem mhm. ñu daal tant que AFP ñu ngi fi rek ah rek mo xam mais fas yéene ñu yàlla wan ginnaaw AFP yàlla nag moo xam politique kese la mais président Moustapha Niasse dinañu coloré goo xam ne bëgg nañ tey bu retiré woo politiquement ñun ñu téye flambeau yi ñu bokk suñuy dem seeti leneen mais ñun ñooy toog téye jéem a xëcc ñeneen ñu ñëw ñu liggéey ensemble l'interview tire à sa fin tey euh, Anta euh, ñu ngi waaj élection locale laka ngay wax Sénégalais yi ak yow laka ngay wax ñi nga xamante ni peut-être ñoo nekk sa ginnaaw wala ñi nga nekk seen kanam. waaw ñun ñun élection locale yi janvier 2022 la. Mhm. Euh, président Niass woo nañu nañu ci coalition Benno Bokk Yaakaar la ñuy mhm. donc comme local la nag wax mhm. local wax commune. donc man commune de Wack Ngouna laay waxal. suñu parti AFP la suñu coalition Benno Bokk Yaakaar la mhm. ñun AFP toogaguñ ne kii mooy suñu candidat mhm. Benno Bokk Yaakaar aussi waxaguñ ne kenn mooy candidat mhm. am nañ kilifa moom la ñuy déglu mu le président Moustapha Niass ku mu wax ne topp leen ci kawam dinañ topp man nee naa ko keroog nee naa ko papa bu béy bee doon romb soo ma ne Anta toppal ci kawam mooy doon candidat dinaa topp ci kawam donc ñun amuñ xaar ma yàlla ak kenn comme ñu wax ne toppal ci kawam rek dinañ topp mhm. mais di lancer appel jeunes yi que ne nañ ensemble ñu liggéey mhm. parce que nag ñun commune Wack Ngouna amuñu opposant de mhm. ay xaw ma PDS ak beneen parti boobu yu PP yi yooyu noonu <laughs> waxuma ko fii Benno Bokk Yaakaar moo fi nekk donc allah kulli aale Benno mooy gagné mhm. alors suñ ne bennoo kii rek incha dinañ wàcc sur le terrain mhm. dinañ liggéey et dinañ jël commune bu soobee yàlla mhm. dans le cadre du benn bokk yaakaar Anta le mot de la fin ku ne xam aussi Sénégal li nga xamante ni moo di troisième vague coronavirus ñëw na fi naka ngay wax euh, jeunesse bi nga xamante ni ñoo nekk fii ak naka ngay wax sénégalais yi li nga xamante ni moo di coronavirus ak le mot de la fin déjà wax nga ci jeunes may remercier Dakar new ma fi mhm. mais lépp luy coordination ñoo ko def mhm. ñoom ñoo dem ci dëkk yi wax ak mhm. def lépp su ma waxee jeunes yi ma koy teg si le président muy Pape Ibou Faye mi nga xam ne jeunes yi Koutango fii moo leen jiite mais aussi di wax ci Fodé Aïdara mi nga xam ne tey dëkk yëpp moom lañ tabb pour que mu nekk président zone bi nga xam ne moom la ñuy installé fii nii bi ñu defee bureau consensuel donc moom moo wër dëkk yi wax ak ñooñ convaincre leen ba li mën a am si wax loolu aussi Euh, responsable yi fi nekk aussi si parti bi mhm. euh, Moustapha Dem ci wàllu góor ñi di sama mhm. tonton mhm. sama yaay aussi nekk responsable femme AFP fii ci Koutango ñu leen remercier di remercier population Koutango yëpp di remercier aussi le chef de village nga xam ne bi ñu ko ko waxee daf ko rafetlu macha allah jox ñu ndigal ñu def ko par rapport ak troisième vague bi nga xam ne am na ah ñuy gën a sensibiliser nit ñi man dama leen ko tout le temps nee naa leen un jour dama toog leen ne allah kulli aali tey damay vacciné wu ji ba ma jaralee dem naa ma vacciné wu ji donc ku nekk na nga dem nga vacciné wu ji protéger sa bopp protéger waale aussi say famille mhm. xañ na man jeune la mun na am wér yaram mun naa am corona du ma sonal mais tey mun naa contaminé benn pa boo xam ne mun nañ ko ñàkk donc loolu rafetul na ñu sensibiliser ñu ngi ci vacances yi jéem a wax ak ndaw yi ñoom ñëpp nañ dem vacciné wu ji mais aussi mesures barrières yi nañu ko respecté mhm. loolu laay wax Merci beaucoup. Voilà qui me fait à cette édition. On vous donne rendez-vous très prochainement. Abdou Salou, c'est ici Equivox TV. Il faut laver les mains, poster le masque. Coronavirus est là. Merci